si dañuy mbégte mën na ko waaw mën na ko nga jël mbir jox ko ko mën waaw mën na ko ku ñëw fii daal sa xol dina sedd damaa fekk ànd ak moom laay fu Sidi Diop rek mm-hmm. xale bi mën na woy yaru na xam na li muy def la macha allah vendredi bi ku ko rate rate nga lépp vendredi cosaan dina mel ni njaar dem te ñu ngi woo Sénégal gépp ñu ñëw wuy si Sidi ndax xale bu xam fi mu jëm la xam li mu bëgg mën li muy way te ànd ceeg yar ak gin te boo ko defee rek loo woote gars yi wuy si la te Sidi ma fi nii ma poñe réew bi may njëkk a dem ci Sidi Diop wax dëgg yàlla yàlla dëgg rek la bëgg. waaw jàpp moom ma yóbbu waaw njàpp laa fan woon ba dem Sidi Diop njàpp réew mën a fecc mën a créer am style am daaj xam nga euh, daal di indi ci fecc bi comme Abba ni mu indee ci animation bi humour njàpp dafa indi ci biir fecc bi humour xam nga di fecc di def li ko mu neex ma man bëgg ay ku réew ak kuy innové ak yooyu ma dem seeti njàpp hmm. ndake man njàpp ma yóbbu mais ne ñaay baax na yaa ma indi <laughs> ndax ndax <laughs> orchestre Sidi Diop bee bëri ay phénomène kii piano waaw euh, phénomène la. waaw Abdou Salah Diéri. waaw beneen phénomène la ah. Aliou Ciss. mais phénomène yee bari ci orchestre ah, Sidi Diop. Sidi Diop benn la ci biir stade Ah. orchestre bi am na lu sinapkat bii Baye Niass mi star la ñëpp ba am ay fans ñoom ñëpp ah. eh, eh eh soirée Sidi Diop ah, yéen yéen mos leen ci dem bañ a dem lu leen dal waaw loolu ma ci mos a yéen da ngay soirée Sidi Diop orchestre bi avant ñu yéeg dañuy signé autographe ba yéeg luy loolu ñii sinap ni dañuy signé autographe ba signé eh, ñii lan moo leen Sidi benn soo bu mu way day wàcc signé cinq autographe ñi eh, nar a bëri big daw soirée bu bëri big xale yi dañoo <laughs> wax dëgg yàlla Sidi Diop maa Cissé ndax am nga kii euh, kii bi loolu ma doon maa am nga li ma doon commandé ay ci dina ko am bi ko amul woon sa dina maa ñu xool li ci <laughs> scène, la télévision près de vous. moo tax mu Ndeye Ndiaye bànn yaa ndew ndew ndew ndew ndew lu tax tëyëx bu mujj bi moom day aj tànk la moo tax chaque fois tëyëx bu mujj bi Ndeye Ndiaye bànn yaa day aj lu tax tëyëx bu mujj bi Ndeye Ndiaye bànn yaa day aj mais nag mais nag mais nag lu mën a xew yéen xam ngeen ni ñiy joué biir cosaan euh, ñoom rek ay gagné am bénéfice biir cosaan ngay joué ñu lay defaral sa communication eh, sa xam nga booy tëgg fii ñun dañ ciy jàpp te xam nga ñun dañoo mën a sot ñëpp ci wax dañoo mën a sot danañu defal publicité bi ci war Sénégal gépp dana ñëw njox cosaan dafa nekk ci këru Dakar ñëpp ay ñëw cosaan day ñëw Dakar Fass Gueule Tapée ñëpp ay ñëw te defe naa ne vendredi bii ku teelul ñëw doo dugg ci biir te doo ndaateel ji fële la lay fekk ci mbedd ma si Cap Régis Grand Dakar benn tali ñaari tali Sicap Fass ñëpp ñun ñëpp te boo fi ñëwee da ngay bëgg ndax ku ne kii ma ngi pare de man naa fàttaloo ay nit ay problème ndax kii mooy kii <laughs> jàpp ngi nii kii njàpp sama woon man bi man bi may dem ñàpp ma yóbbu woon. waaw waaye bi may ñëw. dañu ma indi. kii mën naa tee andi ku ne. ñàpp <laughs> mu sukk eh, eh, eh, kii a nax kii. dafa mën a fekk kii mën na maa nax ba pare bu la xoolee. te maam daal ñi ñëw ci soirée Sidi Diop yëpp. nday jaay bànneex dina ci xool ku nekk. waaw. teex na. ah. ñu <laughs> ah. yi Ndeye Ndiaye àq la gën a bañ ci àdduna ah bëggul kenn àq fii di da koy woon ni ko bugguma amel kenn àq Ndeye Ndiaye ni ko doo amel kenn àq déedéet xale yu góor yi ñëw yëpp Ndeye Ndiaye dina la xool ak foo mën a toog soirée bi ñaata la ni baax maa ñaa damay rek jar naa laaj eh. ku la fa dëgg dina mag ay ay Sidi Diop vendredi euh, moom mooy tëgg fii ci biir cosaan yaakaar naa ni mag mu bëggul woon ñëw fi ñu te ni sax xel a ngi ci ñëw ah, li ma bàyyee mu jaaxal li ma bàyyee mu jaaxal sama téléphone yi tam ñiy laajte bii yi bari na. fan yaa ngi DG ngi nee na moom it day ñëw mook maam randu ku ko yóbbul. Eh, ak DG suba tey ngeen bëgg rek DG. DG eh, benn kii eh, surtout internet. waaw tuddee boppam DG. DG rek lañ xam DG rek lañ xam damay bañ siiwal ko. moom ngay wax moom xam déedéet moom a bind ni moom day ñëw nañ ko laajteel bii bi ñaata. moo tax ma ne ko DG ñu war a. ñu ngi xaar DG kon ci Sidi Diop jotaar kàll yaakaar naa ni. mën nañoo xaar ñeneen ñu dul DG. waaw yéen a gën a mën na ñëw ku dul DG. waaw loolu laa la wax ah, patron wax son excellence ak ñëpp mën nañoo ñëw honorable ay <laughs> Sidi Diop nag eh, buy nekk fii ci biir cosaan eh, ñun yaakaar naa ne dañuy nekk ca beneen wàll wa ñun dañuy nekk ca beneen côté ba eh, foog naa ni da ngeen ñuy xool fi nga xam ni moom mooy ca Saloum ñu daal di fay féetee Abba Show ce samedi 5 Saloum Saloum yi waaj leen ko bu baax a baax a baax yaakaar naa ni ñu xool bande annonce bu ñëwee tamit moom daal di ci waxtaan la war a xew ci Saloum yëpp ay ca maa aussi Poids Kaolack yéen a aye SSP présente Abache Autour le plus grand spectacle de rire au Sénégal le samedi 5 novembre ca cœur de ville de Kaolack équipe bu Abache Show yegsi biir Kaolack ñu ne vendredi la ñuy tàmbali ci suba si ñu set setal dëkk bi teg ci nag caravane bu rëy ci guddi gi ñu tànn beer waaw tànn beer bu rëy ku koy animé ñu ne moo jaañ ci Kaolack dana yëngu le samedi matin ñu def don de sang équipe bu TFM yegsi ñu weekend start guddi gi ñu spectacle ak parrain de cet événement PDG Doro Gaye borom plateforme Xëppil Xool madame Mariama Sarr ministre de la formation professionnelle monsieur Diène Farba Sall ministre monsieur Serigne Mboup maire de Kaolack monsieur Pape Demba Bitèye directeur Sénélec monsieur Modou Ndiaye responsable politique monsieur Ousmane Kane gouverneur de Kaolack madame Gaye Clara DG Rafprod madame Mame Diarra Mbacké Ahmed Youssou Benjeloun président conseil départemental de Kaolack madame Aïssatou maire de Ndiafate Ousmane Ndour transitaire Mama Nyanko Chéri Omay femme d'affaires monsieur Moustapha Sow responsable politique Borom Yes Kaolack m Ibou Bambara opérateur économique monsieur Moussa Diama opérateur économique Ousmane Noël Dieng responsable politique Baye Ciss président Ciss Corp Holding monsieur Mbaye maire de Kaolack Papi Gaye responsable politique président mouvement Le Réveil Kaolack monsieur Toumani Ndiaye monsieur Vita Fafa Gueye animateur monsieur Abdoulaye Diouk monsieur Hakim Amar madame Nogoy Diaw Leila Evans Couture Amina Poté animatrice à la TFM ñu ne rendez-vous baa ngi noonu ak Abba Show Tour bu leen ko kenn nettali samedi 5 novembre à Kaolack ñu ne fan la ñu jëm cœur de ville de Kaolack waaw biir cœur de ville de Kaolack gaaw leen gaaw jënd seen ay ticket ci 77 655 51 80 ou 77 939 69 72 entrée simple 2000 VIP 5000 ak Abba Show ñëppay reetaan lii mooy no stress. ak euh, Abba Show biir Kaolack yaakaar naa ne waa Kaolack gépp a ngi koy wàcc Abba Show programme bi mooy le vendredi ñu def set setal. vendredi ci ngoon ñu joué match de football vendredi ci guddi euh, dërëm yaay ñu tànn biir laa ilaaha illallaah Dakar ne dort plus ma si metti dàll yi rek yóbbu leen ca baara mbay ju yàgg ga ndax la macha allah yéen waa Kaolack xam naa ne du leen ko yóbbul ndax ñu ko mën la ndax Kaolack kuy jaay fecc ba yegg si fa dangay taxaw kuy jaay bàkk mbaa dégg ba yegg kawlax boo yegsee da ngay taxaar comme waa Kaolack dërëm nee na dana ñëw dal seen kaw na ngeen ko wàcc ndax man bu may ñëw du ma indaale dal du ma indaale rosa ndax ma koy màcc dinaa aj baara mbay joo xam ne lu guy nga gis. Birame yaa man loolu yow ba aa ah abaa ndox du bàyyi yoon baara mbay bu yéeg ba ci kaw. bu ci kaw wàccaat ci suuf sukk karaate leen ñoom ñëpp ko kàcc mu la da ngay nappaate da ngay nappaate loolu mënoo ko seen kaw laa oh, jëm loolu moom mënoo ko moom baara mbay bu ci kaw wàcce waat ko. ma kenn tëye ak ah, ñi la tak kenn tëye ay ay ki lañ ko tak nañ ma yeew na bu ay li la may def waaye boo ma yeewu woon ba ma oh. naaw nga xam ne ndox du bàyyi yoonam yow mën ko fi jonni moo dërëm yow sa baara mbay même wëndeelu waa Kaolack baare eh, eh, <laughs> waaw ah, yaa nga fa nga nekk waa Kaolack dama bàyyi mooy xew war naa ne bu ñu xëyee ba seet seetal ba noppi seet seetal Kaolack gépp dañu fay jouer match de football ci guddi gi ñu tànn béer tànn béer bu rëy def ko Dakar ne dort plus waaye samedi ñu koy def don de sang def weekend start ci guddi gi ñu def Abba Show yaakaar naa ni contenu la indi les région yéen ñi bëgg seen ay billets mën ngeen a dem ngeen daal di koy jël ci alimentation Kër Baay woote ci numéro téléphone 77 433 69 wala ngeen dem ci Amar Prod chez Akim Amar 77 939 69 wala ngeen dem ca Harlem Shop chez Ibou Diaw 903 33 22 wala ngeen dem ca am Kan moom nga xam ne moo représenté Techno ca Kaolack woo ko ci 77 640 15 19 yaakaar naa ni lii mooy numéro yi nga xam ne bu ngeen ci wootee mën a am seen ay billets ca Kaolack Abba Show biir Kaolack Abba Show Tour war a wër Sénégal gépp gépp gépp samedi 5 ñu ngi Kaolack na ko ñëpp waajal. ayca mi ngi noonu leer na nañ ku weddi rek ba nga fa jógee fa bàyyi ñam nañ ba nu xëyee suba amul kenn koo xamee am nga la naqari ñam nañ ñëpp a bég mbégte googu waa Thiès amoon moom la waa Kaolack war a am moom lañ yéene Sénégal moom lañ yéene Sénégal yow euh, euh, rythme bi nga jàppoon ni boo ko bàyyiwul. rythme bi ñu jàppoo. waaw bi ñu jàppoo waaw ma ci de maa ngi waaw. waaw déedéet bi ñu ko jàppoon ni bu ñu ko bàyyiwulee. problème dina xaw a wàññeeku fii ci réew mi. Mhm. waaw ndax liggéey daal moo am solo te yaa ngi ci yàlla yàlla defal la jàmm. ayca am na solo ayca am na solo yaa ma damaa foog ni bu ñuy wax programme bi moo tax ñu ñuy woo waa Kaolack yëpp. waaw waaw kuy autorité nekk biir Kaolack. pouvoir rek opposition wak ñun dañuy woote parce que yaakaar naa ne ñun fu ñu dem. Mhm. rek ci ñun la ñu war a séenee wala ci ñun la ñu war a gisee. opposition ak pouvoir toog ñu reetaanandoo. mbaa woo ma jee asu sare doomu Kaolack la xam ne ah jee asu sare. ah doomu la woo woo ko. jee asu sare maa ba Cheikh Laye dem lay woo ndax mm. tubarkalla macha allah. barki démb lañ jógee Kaolack mu def fa lu rëy ibbi daara def fa ay doomu kawlax Kaolack la juddoo fa la màgge ñëw Dakar def fi bu nu weengal sare maabo sama seex boobu maa jumel ñu ngi lay woo ndax sa dëkk xew la nag te xam naa ne Aba bu ñëwee sa dëkk ak waa Aba Show doo bàyyi mu lewet sare maabo maam Baye Niass euh, ñu ngi koy woo moom tamit ma nga ca Dubaay maam Baye Niass ma nga ñu ngi koy woo moom tamit suñu xarit la euh, ñu ngi koy woo ci waa Kaolack bu baax ak Ousmane Noël ñoom mun Ndiaye Rahma Papa Oro Gaye ñëpp rek ñëpp rek ñu nekk Kaolack ñëpp ñu leen woo waaye di wopp la population kaolackoise public Kaolack gi yëpp ñu ngi leen di woo ñu génn daal ci jàpp te xam ne dañoo ñëw rek bëgg kaf ak ñoom reetaan ak ñoom lépp ci jàmm ak ci ambiance nañu dem xool yi film bi nga xam ni moo yëngal réew mi tembe tembe ku ci nekk ci ñun mën nga cee xool sa bopp mën nga cee gis sa bopp balaa ñu daal suñu invité ku bëgg am li nga xam ni mooy les valeurs ku bëgg am ay jikko yu baax jikko yu rafet ñu seetaani film bi te ñëwaat léegi ci plateau Seetu Sénégal acca ñëpp di wër xas bëgg koo gis yow nga dox ba daj ko doo ko jël xaalis bii mbaa tas gis nga boo fi dof dofloo ba sama yaay tas sa sëy bi di ko rëccu sa giiru dund lan la la wax concernant Doudou xanaa ni bokk na ci ñi rey sama papa moom ak ñëw maintenant qu'est-ce que tu vas faire Sira képp ku impliqué ci deewam dina c'est juste histoire de passer du bon temps ensemble. avoir une petite. yow looy def nii. nan laa def. xamoo li nga def. ana pour man yëg-yëg bi ma am ci yow nga am ci man. parce que da nga xam ni que femme divorcée la moo tax nga fa ne ko tuddee permis xam nga lan la soo bëggee jigéen bu yomb na nga ko dem uti ji ay yéen. que quoi da ngay débarquer kër jàmbur comme ça et que ça se fait et puis nan nga def pour xam ne fii laa def. Salif dama laa woo ñaari yoon jotuma la moo tax ma ñëw. où est le problème. tu insistes ba jot ma. ça loo yëkkati sa baat ci kaw nii. papa est que nit baax day am ay teggin kii yàgg na fi man maa ko wax mu xaar la te jàmbatul benn yoon ah xanaa nit buy wax yow da nga koy déglu. Abdou ñu duñu sàcc. te ku xamul buur saay na nag ah ñu ne la buur dee na. na nga ñëw ba fii sama kër du ma mën a se. ala Kenza. eh Kenza nekk. génn fii eh laa waxal génn fii laa wax. Eh, su ma kii gi ñu ne nag yow. da nga bëgg a sori dimanche sur la TFM production Raf Prod saison 2 valeur yaakaar naa ni gis ngeen euh, production bi ni mu toll ak fi nga xam ni fa nu ko yóbbu euh, lépp rek ay yëfi professionnel la lépp rek ñu teg ko ci cadre boo xam ni liggéey rek moom moo wóor donc ay xale ko def ay jigéen ki góor ànd def liggéey bu am solo euh, ay doomi réew mi lañ ñun fier nañ ci ñoom lool lool waaye xaar nañ ko tous les jeudis ak dimanche et sur la TFM na ko ñëpp xaar am na solo invité bi ñu am nag dootuñu ko présenté réew mi ndaanaan la bu ñu ko woowee war a waxtaane culture aar ak li nga xam ne mooy théâtre ci réew mi yoon la mhm. nga bàyyi la euh, nga dalal ñu suñu invité waaw ndeysaan waaw comme ni nga ko waxee rek mhm. dalal nan koo xamante ne nii théâtre moo ko yar culture moo ko yar dalal nan koo nit ku baax nit koo xamee yàgg naa euh, di ko suivre mu doon nit koo xamee ku diñ ci li muy def ndax doomu aadama bu nekk boo nekkee ci mbir di ci yëngu war nga cee am euh, war nga cee war nga cee am personnalité war nga mhm. cee am fulla ak fayda mhm. ba bu ëllëgee bu lay laaj ci loolu nga ne nga mën cee wax loo xamante ne kenn ku ne dina jël exemple ci yow mhm. kon donc bu ñëwee toog fii ñu war koo laaj ci li nga xam mooy euh, théâtre démb ak tey ak li nga xam ne moom lañ teg léegi muy valeur loolu doon loo xamante ne nii tey suñuy valeur ñu ngi koy euh, commencé. dinañ waxtaan ci lépp nag. waaw dinañ waxtaan ci lépp dinañ dugg ci lu bari. Mhm. waxtaan ci parce que moom mii mën na cee développé lu baree baree bari. Mhm, mhm, parce que dund na loo xamante ne tey ci aar bi. Euh, ni mu ko doon dunde ak léegi ni muy ni muy amee. am na benn différence bu ci am. changement bu baree baree waaw am coow li ci maam daal bu ragal yëf yi. coow li ci affaire bi. coow li ci lan moo tax. théâtre kat bu màgget boo feebaree dañ lay faj. waaw te boo demee Afrique nga génn tuuti wala nga dem Europe. waaw la milliardaire waaw organisation la waaw wala ñun réew mi la wala loolu lan dañuy waxtaan waaw waaw dañuy waxtaan parce que parce que ñoom bégguñu salaamaaleykum Ibrahima Mbaye <clears throat> waaleykum salaam Ava ñu ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax euh, di nuyu téléspectateurs yi di leen sant di ziar ñëpp wax dëgg yàlla Rane maa ngi lay nuyu ndeysaan maa ngi lay fay maa ngi lay ziar bu baax a baax mais ma am mbégte aussi Aba mhm. tey dajeek euh, sama rak mhm. sama xarit sama jigéen ah kii depuis Mayacine ak Diallo woon waaw waaw boobu boobu siiw xewul ah, siiw <laughs> bëriwul nii quoi. boobu tuuti personne <laughs> ñoo siiwoon mais boobu ba tey aussi ndeysaan ñu jàpp dara dara dara ñaawul macha allah. kon sant yàlla. Euh, yàlla def aussi ma jàkkaarloowaat ak yow Aba ngay sama rak nekk sama mhm. xarit. Mhm. Euh, ma gis aussi liggéey bu am solo bi ngay def ci ci wàllu humour ci mhm. wàllu théâtre d'une manière générale. Euh, damay faral di wax ni yow fabricant de bonheur nga. yow usine nga xamoo loolu. usine nga usine. ni usine yi di créer ay meew ñi di créer ay ay leneen ay oto yooyu yow fabrique nga. boo xamante ni ci donne la bonheur dans les maisons. et ça c'est très important. <laughs> te une figure donc tey jii. c'est avec beaucoup de joie que je suis donc waaw ñu waxtaan. mais tey yow yaay Ibrahima Mbaye mais dafa am leneen lu ñuy dégg ci sa nom. loolu fan la jóge ci film yi la. walla ci sa wala ci bi ngay nekk booy nga. wala dafa bokk ci sa tur. le soppe damay éviter des fois d'en parler mm-hmm. parce que waaw mën na yéeg mais naa ko ñaan yàlla tey bët waaw ñu ñu téye ko bon sama benn xarit bu tuddoon Aïssatou Faye jàmm gën a dëkk moom moo daan wax bi ma nekkee au lycée Abdoulaye Sadji mu naan kii mooy sama soppe bon waaw ba mujj gi mooy woy sama soppe mujj gi après au fur et mesure avant terminal mm-hmm. mooy woy soppe mm-hmm. donc bi ñu ñëwee école nationale des arts bi may def première année après may def deuxième année beneen Ibrahima bay ñëw di def première année léegi nag gars yi jël soppe boobu gën ko waaw foofu la gën a yéegee waaw mais lu tax tur bi symbolique mooy astu fekkewul hmm. li ma am si théâtre yi waaw parce que moment moment bi may gën a génne di waaw ñu may xam ma commencé si dund ci moment boobu la gaañu donc waaw waaw. moo <laughs> duñ ci taxaw. waaw loolu duñ euh, man li ma koy laaj rek. Mhm. mooy comme li nga li nga li nga commencé léegi. Mhm. muy li nga xam ne mooy aar bi nga xam ne mooy Sénégal. Mhm. léeg-léeg nga gis koo xamante ne dafa si toj Sénégal def loo xamante ne ni bégaloon fi ay nit ñoo xamante ne ni tey jii euh, dañ daan toog di di booba jamonoy euh, daaray Kocc bu muy nekk fii xale leen yoonu daara ji ay litiyaay litiyaay booba chaque mardi. bu théâtre waroon a commencé danga daan am ñoo doon xaar ñu lay ñu war laa bégal ñooñu ñu dem ba nga xamante ne ni tey jii ñoom bégunu mhm. loolu taxawaay boobu nga xamante ne ni tey jii euh, moo am ci aar bi lan la lan moo waral aar aaru Sénégal ñi nga xam ne ñoo daan bégalaate après fu mu mujjee dafa mujj metti lool lool lool ci ñoom. waaw euh, question bu pertinente la. xam mhm. nga aujourd'hui euh, il faut ñu reconnaître benn affaire. théâtre benn métier bu informel la woon. art d'une manière générale. Mhm. yi léegi ñoo ñëw révolutionné ko. auparavant théâtre bi mu duggee Sénégal Abba à part Sorano amoon na fi ay compagnie privée ay le nouveau Toucan euh, ak yooyu yooyu xale yi léegi xamuñu ko mhm. ay Zénith Art ay Faro Théâtre ñooñu ñoo fi nekkoon mais au-delà de ça il